asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fa wahabu ya saqu ya maliki li tawhabi ya wasquna ana da fi asigan ajilan bil bisi muhammadin hata kama ya kama so joni to wa wa wa min yakna wa li sama iskana kasama wal aradi wal hawa bi musharikin ya rub mashmana ajib posil hasan bin muhammadin wa tamli bi bana subhana bika abuna tamasun asalamu alaikum sëñ bi amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu waa alhamdu xadim waa tarbiyatul ruhiyya waa amadu xadim ñëpp ñu ngi leen di di siyaare ci weer wi tëdd yi muy safar xayir weer wuñ jëm muy muy gàmm ko ak ak weer yàlla yëpp yàlla na yàlla dafa toppeex xam naa bëgg na waxtaane kayfa nujaalisul aarifina billah naka la ñuy toogaale ak aarifina billahi loolu lu am solo la loo xam ne da loo xam ne da dama gis bi yaakaar naa la man se xaar ci ci ci ci xasida sëñ bi mën al xaq jaa al xaq xaq bi sax bi xasida googu xam ne sëñ daara sama mag jëli na ci sëñ Abib mu ne mu ne Mbacke Kajoor tur naa wax ji ci yéen la woon ba ba njaarim sëñ bi na ko defaroon ñëw njaarim sëñ bi ci yéen ba njaarim sëñ bi da koy bindi am na ko ci aw carton mu jur bant teg ko ci di di ko wër mbedd yi ko ko gis texe waaw man sax bi ko waaj yoree xanaa ba romb romb commandant xanaa commandant mu nekk ci buntam commandant wax ko ne ko taxawal mu xool ko nee na mu kooka bañ commandant gëdd ko mu taxaw di koy wax sëñ bi nag commandant ne dama gëdd mu taxaw mu xool ko sëñ bi ne ko gisu ko gisu gisu xasida gi mbind ma la gis waaw nga xam ne kon lu ama am solo la loolu kon loolu kon lu si waroon a yaatal la ci mbindum loxo maag yooyu yëpp nga xamante ne xilaafa geeg waroon na ko def projet bu rëy ci ci nit yi ma xool ko man ko jëriñoo noonu nga xam ne barab yu mag yi ubbi ubbi ko yoon na sëkk ubbi ko ndax ndax ndax larax yi nit ñi def ak ak sugu-sugu yi nit ñi am barab yu mag yooyee moom barab yi suñ bàmba yam réewum boobu def ci ñaanam nga loolu loolu loolu di gën a ñaan lu lu mu tëdd tëdd tëdd bu dee fi fi man ñaan suñu bàmba gàmmu bu gënal loolu kon may xool mee xaq mag ña ci la ci la ma dégg nga xam ne ne ne déggu ma ma ca ku posé question yii may bëgg a wax waaw bu dee nag sëñ bi kay jël na inam na ci yéen jolof ba njaareem di di ko war ngir bëgg pour ñu warale ko fa ngir bëgg ni ñu gis ko léegi ndax mag ñi posé nañ question sëñ bi ne ko waaw kon nag silmaxa si moom kon lu ci ab cëram ndax kon bu ko laalee doy na wala bu ko bindee naan ko doy na wala wala lan moo ci cëram bu ñu waxee loola loola tontu ñu ñu ne ko ah waaw sëñ bi ki nga xam ne moom dafa wéradi wéradi goo xam ne mënta laal mënta laal mbind ma bu dee bu dee ci laal ko la bu doon bu doon njëriñ léegi bu bu xool ko laal ko la kon ki nga xam ne mënu ko laal kon moom moom luy pexem tontu dana ñëw bu dee ki nga xam ne ne mënu koo laal mënu koo naan ndax gàllankoor am na ci ci jumbu ja kooka moom it luy pexem tontu dana ñëw nga xam ne question yu bari yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy laaj question bu ci ne question bu ñu jàpp ne loola mu situation ma mën na koo mën na koo juddloo ñu laaj ko sëñ bi yaakaar naa yaakaar naa loolu dégguma ko fenn ci ci njaareem mag ñi daa ko waxtaane nga xam ne kon jumbul kon sëñ bi noonu nga xam ne Seydina imaamu Junayd di waxoon na ko ne ay waay ne ay waay daal di ne Seydina yu karamal aw ceex moom de bu du toon xeexa yi xeexa bi rek day kon kon de danañu dellu ci suñu xam-xam bi te mooy tasawu waaw wala boog al irfaan aw maarifatu billaah taala waxee kana mu ne waxam jooju de Seydina imaamu Junayd di wax ja dama yaakaar ne da da koo tënk waaye kon day wax ji sax day àgg na ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xeex yi xeex yi ak kàjjigu gu kàjjigu kàjjigu naari kàjje waaw arsina yunaadu duunaka min waraa il xujuraat dañ ko daa wooje naan ko diw diw dañ ko wax sax naan waaj yi waaw waaw age agi nag an taxbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun jàppe ko jàppe ko nit ordinaire nga xamante ne loola tax na ba ba ba secret yu bari kenn laaj ko seetlu Sëñ Tuubaa lu nekkee gànnaar période boobu époque boobu ni mu ni mu riisee ni mu foore tax kat kàngam yaa ngi fa woon xoolal bi bi bi ko naar yi di laaj comme xam-xam yi siira yee ne kon day jàng nañ siira ñuy wax yu dimanche salaam ndox ma doon ball ca loxo mu sell ba tenqa mu sell la waaye day téere yi waxuwut kay fii ba nan la doon balle sa sa sa adi laa wax dëgg sa suñ bi daal taal loxo loxo mu tedd ba tenq la ndox may ball ñuy xool xool ñooñu de xool ñooñu seen question yu mutu dikk yi nga xam ne yu am solo la lu tax noonu. njaareem la laaj ñu woon sëñ bi ne ne ko dañoo waxoon ne kat yonent bi alayhi salaam dañ koo xaraloon weer wa loolu de dañ caa bëggoon a am am firnde lu tax waxu ñu ko ñu ko woon loola lu tax laaju ñu ko woon ne ko al irfaan bi tëbb gi ñu tëbb ci yow dañoo bëggoon nga sarale ko ba ca suñuy sët ak sët ñi ba àdduna yi tukki moo tax laajuñu ko woon question boobu lu tax sax mag ñi laajuñu woon sëñ bi ne ko dañoo dañoo dégg ñu wax ne de suñu borom am na téeméeri tur tur ñeent fukk juróom-ñeent yii de lañu bëggoon moom ko ku ci bëgg a jëriñoon nu muy def tur bu nekk bis bu set ñu dikk ne ko tur sàngam nañ koy jëriñoo bind ci ab téere ca ca loola lu tax mag ñi laajuñu loola. sëñ Tuubaa mi ngi naan xat xuttali bil alifil maxfiyi naylal maqaamatil ulaa bi tey ba tax mag ñi laaj ñu sëñ bi ne ko luy al alifil maxfi wala jàngkat yi nga xam ne ñoom dañu naan allahu xëcc goo ngay xëcc laam gu mujj gi alif goo goo nga xam ne moo koy mandargaal loolu mooy al alifil maxfi waaye kenn gën di ko bindal ñàkk bind gàll ñu di déedéet leneen la kay leneen la leneen la lu tax lu tax laaj ñu ko ko siru laa ilaha illallah muhammad laa ilaha illallah wax na ko ci masaalik ne ku bëgg a xam da ngay fase àdduna waaw lu tax mag ñi laaj ñu ko laa ilaha illallah ne ko secret bi lan la nee na bi ñu ko ci téere yi moom suñ bi wax loolu lu tax laaj ñu ko secret bi laa ilaha illallah ay question yu méthodique yu am solo yoo xam ne yoo xam ne sëñ bi laaj laaj ñu ko am na kenn ci seen soxna soo xam ne daa waxoon Cheikh Moussa ne ko dama bëgg a mucc ci sukuraat maam soxna Diop su sama benn maam nee na bu nekkee ci waay tay ma nga naan ma nga naan jàppale ci ci sëñ bi jàppale sëñ bi jàppale sëñ bi nga xamante ne sukuraat moom jaaru ci moom lu tax mag ñi laaj ñu woon sëñ bi ne ko waaw dañoo bëgg mucc ci ñun ñëpp ak suñu njaboot ba dañuy tukki donc yëpp nañ mucc ci ci sukuraat lu tax laaj ñu koon laaj boobu loolu te muy laaj bu am njëriñ waaw ma kenn mën naa ba bañ a jaar ci ci bàmmeel te dem àjjana ñu rafoon la ñu rafoon ici na Iblis mu taxul tax mu tax ma ngi laaj woon Sëriñ Tuubaa ne ko da danoo bëggoon donc yëpp njaboot gi yëpp ba dina dinay tukki kenn du ci jaar ci bàmmeel àjjana la ñuy def direct lu tax laaj ñu sëñ bi lu tax laaj ñu sëñ bi la mu waxoon baykat yi si nee na am nañ lu lu lu sëñ bi doon luñ defaloon sëñ bi xaw ma ñu ko defaloo wala ñoo ko defal def na defal seen bopp sëñ bi nag sant tàngal leen kafe jox leen ñu leen di ñu leen fas leen ci lu ngeen bëgg te te mu ne ma ne taxal ma fasul leen ngeen bu ngeen fasee su ngeen feccee ay xandeer ngeen ngeen di fecc man nag su ma fas su ma feccee wurus ak xaalis la ci ci lay fecc daanaka fasal naa leen ci ngeen dëkkee fa yonent yi dëkkee ëllëg waaw lu tax ñooñu ñoom ñooñu suñ bi ah loolu kon ba dana jàll ba ci murid yëpp noonu sëñ bi Samba fekke woon gaa yi di di xëccoo saafara mooy lu mu doon ñu ne ko suñ bi jógee mu ne ma xool jël ko këpp ko ko ca ten ba ten ba nee ñu am naa ci ñaari wax ten ba mooy boobe ca ca ca buntub buntu bi kër sëñ bi jàkkaarloo jumaa ji wala ba ba ba duggee ci biir kër gi sa càmmoñ teen boobu am nañu wax loolu lu tax lu tax gars yi waxuñu woon sëñ sëñ wàll loolu ay question méthodique la yoo xam ne laajuñ ñu ko sëñ bi lu tax lu tax mag ñi laaj ñu woon sëñ bi ne ko ne ko jamono day mi ngi ñëw yaanu ko gën a xam jamono na ja alal yi def ko ci loxoy gone yi ba noppi te kaste seen xol ya ba alal ji du ci agsi lu tax lu tax ba ñu laaj loolu waxuñu woon suñu bi loolu su ñu ko waxoon am tontu moo tax mag ñi waxuñu woon suñu bi ne ko dañoo bëgg basaa'iru gone yëpp yëpp yëpp dongo yi ba dinañ tukki ba seen basaa'ir ya nay teewlu xadra ba lu tax sax waxuñu ko waxuñu ko ne ko dañoo bëgg dong yëpp di teewi diwaan ndax loolu bu kon kat kon kon tey sëñ bi da nga da nga da nga da nga fa ëppale da nga fa ëppale da nga fa ëppale da nga fa ëppale buñ def téeméeri fukk ak ñeent ñooy teew diwaan sëñ bi mën naa mën naa xotti baax yokk lim ba lu tax mag ñi laajuñu ko loolu ay yëf yu bari la bari la bari la question yoo xam ne lu tax mag ñi laaju ñu ko sëñ bi te bu ñu doxee nii du ñu laaj gaa yi ñu yaakaar ne xam nañ dara duñ leen laaj dara duñ leen laaj dara ba ñooñu dem jeexeet yi di gën a làqu di gën a nëbbu kon fuñ jëm jamono dafa dafa yàgg de adduna jeexagut de adduna jeexagut de si naa di karam laa wacce ne woon na ku lay do dongam ba ne woon na ko nag faaw muy am ñuy taxaw mbir mi waaye nag dañ leen di laaj si si duwaa ca ca raaya wala ca asiru na suut sudura quburu loolu annoncement la annonce la ca Foucault Michel Foucault annonce ab annonce la def de dënd bi fees na dal dënd bi xool ba mel la waaye kenn ubbi yu ko di nañ ko ubbi moo tax ubbi wuñ ko ina sudura suñ ko waxut boppam képp kon kàngamam yi mu ne ah mi ngi fees dal secret waaye dañ ko ubbi wut moo tax duñ ko ubbi moo tax duñ ko ubbi xam nga bàmmeel moom du ubbi moom kon dañ ko ubbi moom xam ba xam la fa ne doon loolu tax gaa yi duñ ubbi dënni kàngam yi mag ñi kàngam yi nag mu ko waxee maa ngi wax nag daanu ko dee nag boo demee ci boo demee ci boo demee ci réew yi ndakaaru nga gis benn waay waaw benn waay benn waay ab daan ko nee na daa romb ndakaaru ñuy def ñetti xob xamu kàtt googu ñuy def ñetti xob nee na nee na benn waay daal daal nee na am ko jóge foofa daal di ñëw moom ne ko diw defal la sa sa bàyyi nangam daal di la wàcc ci xob yi naan dox leen nee na ma jaaxle lool. mu di mu mbaa di bayal lu ma def dikk man dal na ma dal ma demal dañ ma ko wax loo woon rek de kàngam yaa ngoog ay na maa wujudu way na maa kanu kàngam yaa ngoog umana ullahi fi ardi lu tax gaa yi duñ laaj gaa yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuh